la mairie de Fatick ak euh, les forces de défense de sécurité ak euh, acteurs yi nga xam ne noo nekk si le terrain acteurs yooyu suma ko tuddee ba bàjjenu gox yi délégué de quartier yi les imams la jeunesse ñoom ñëpp la concerné lu nu fi dajalee mooy waxtaan pour fexe ba au mois de novembre incha allah jéem a fexe ba la commune de Fatick signé avec la direction générale des ASP un contrat local tey dañu tase woon pour lancer processus bi de processus bi pour mu nekk il faut que ñu def loo xam ne balaa ngay faj feebar il faut nga am feebar bi lan ma ko waral mooy diagnostic bi tey mën nañ ne si lañ lancer processus bi diagnostic bi nag du ne consultant bi mooy ñëw defal ko boppam du ne la mairie mooy ñëw defal ko boppam acteur yëpp nooy tase ku si nekk wax xalaatam ba su suñu demee ba sa cappaandaw ga lépp li nga xam ne dinañ tëral ne Fatick de insécurité bi nii la tëddee kenn du am lu mu si wàññi wala kenn du am lu si yokk de su loolu weesoo aussi après na si boobu suñ ko validé si la ñuy mën a dem si plan d' action bi plan d' action boobu nag suñu ko defee ku si nekk dinañ xam lan mooy sa taxawaay lan mooy sa warugar ak lan nga war a def ak fi nga koy defee. que en fait contrat bi c'est la signature du contrat local c'est entre. administration qui représente l'État du Sénégal et la collectivité euh, territoriale, le maire, qui représente les communautés. L'agence d'assistance euh, est là en tant qu'accompagnant du, du, du, du, processus de, de, la commune à l'élaboration de ces, de ces contrats locaux. Si acteurs yi nag je pense que acteur bi si njëkk mooy euh, l'autorité administrative vraiment nga xamante ne moo fi représenté le président de la République. Euh, il y a également la commune le maire vraiment qui est un acteur privilégié parce que document bi document maire la donc euh, maire bi dafa mel ni maire bi suy defar document de planification PDCM wut un un partenaire bu koy accompagner mais su weesoo ñaari acteurs privilégiés yooyu y a les forces de défense et de sécurité parce que quand on parle de sécurité mënoo ci dindi ñooñu su weesoo ñooñu nag y a la communauté en tant que telle quand je parle de communauté il y les imams les délégués de quartier les bajenu gox la jeunesse les les services techniques ñooñu ñëpp dañu nekk si acteurs yoo xamante ne dañu war a dañu war a bokk ci ci ci ci processus bi. je crois que loolu nekk na loo xamante ne tey am na mandarga gu mu acteurs yëpp kenn ku ci nekk wane nga sa bopp nangu nga approprié nga projet bi surtout nag ñun mairie ñu gis ne tey projet la boo xam ne ñëw na mais pour gën ñoo sa jàppale ñu eh, ci sécurité population yi parce que comme ni ñu ko waxee ñun ñëpp xam nañu ne dëkk bi eh, commencé na ñàkk sécurité. amaana sax mun nañ wax ne peut-être am na àgg na àggul ci yenn niveau yi nga xam ne moom la ñuy wax waaye dafa am solo pour que dëkk suy màgg ñu xool naka la ñuy jëlee ay euh, dispositions ay mesures pour que vraiment mun a gën a renforcer sécurité bi ba nga xam ne yenn jafe-jafe yi ñuy xalaat ci réew mi mu bañ am fii